taamu safoo seen émission bi nga xamante ne ni mooy Leewtoo ak Leewtoo ak nag tey dafa demaat ci beneen quartier ñu ngi fii ci Guédiawaye ah marché maam Diarra fekk fekk beneen jeune c'est évident nag yaakaar naa suñu duggee ngeen xool sama invité bi nga xam ne lu war a nekk yoon ko sama gars yi nañ dem dànk rek ñu xool ban jeune lañ dala ci Leewtoo ak comme ni ma leen ko waxee ah, dama leen naan dañuy dugg rek def ndànk ndànk daal di xool champion bi ñu dalal yaakaar naa ne soo ko gisee waru leen mën a bett salaamaaleykum ba corona lañ nekk jox ma loxo ci nga nekk waaw maa ngi sant yàlla bu baax sant yàlla julli ci yonent bi di leen wax ne welcome yéen dal leen ak jàmm Cheikh Massène Junior waaw. waaw noonu la fa mën a demee ndax jël ngeen suma blessure ñëw jël si ma lu rafet la yàlla gën a saawoon baawoon ci barke Cheikh Fall suma waa kër gi ngeen ma fekk di nuyu Ameth sama dëkkandoo suma ami d'enfance Ameth Diop maa ngi koy ziar bu baax xam nga di nuy suma soxna di nuyu suma mbokk yëpp yëpp yëpp yëpp ma kenn di nuyu ak lu géwél yëpp waaw kon daa mel ne journée bi de soo commencé dañuy daal di jug ndànk rek ànd ak mbër xool nu muy defee journée Covid bi. waaw comme aja bisimilah ñu def ndànk rek def ndànk rek respecté mesure barrière yi rek euh, ndax séeréer bi bi mu déggee benn pël dafa dégg ñu Macky Sall neena na ñu respecté mesure barrière yi mu dem defar lu bariyeer yu bari ci menuisier métallique yi di ko teg ci ci ci ci ci coin benn pël la mesure barrière yi rek mu ay barrière yu bari ci menuisier métallique yi weñu barrière moom comme dégg na barrière yi rek moom pour moom. mesure barrière <laughs> wur buur di wate ci dëkk bi yow naan yem leen fi yem leen fi. mbër tege fa solo après dinañ ko yeggal léegi ci kanam kon sama gars yi dañuy daal di jug rek ànd ak champion. ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonte bi sant suñu ñaari waajur di sant suñu sëriñ sëriñ Basiru Mbàkke borom mbég mektaar bi teelaa mbër bi laa laa laa yaakaar naa ne soo yàggee ak ñoom rek bu demee dangay ngay dem ba da ngay jël seen jikko kañ dalal nag beneen jeune la beneen champion mi Eumeu Sène junior moom waxtaan ci li nga xam te ne mooy Leewtoo ak Eumeu nuyu naa la waaw maa ngi ma Ndeye di la wax ne welcome dalal ak jàmm dañuy sant yàlla bu baax julli si yonent bi sant suñuy ñaari waajur xam nga di di leen wax ne yegg si ngeen ci kër Eumeu Sène junior xam nga mooy nuyu suma dëkkandoo yi. Mhm. Ameth Diop maa ngi koy ziar bu baax suma ami d'enfance man moom yàgg na trop ba tey suñu borom bool ñu fi ñu dëkk fi dëkk bu rafet maa ngi koy nuyu di nuyu soxnaam xam nga di nuyu waa Géejawaay waa Diourbel. xam nga di nuyu Mbaye Babacar aussi tamit mi waral lépp. Mhm. maa ngi koy siyaar di ko jaale aussi. Mhm. soxnaam su wàññeeku di ko ñaanal yàlla suñu borom xaaral ko àjjana ci barke Serigne Fall ñu wéyal ci kanam. ba leneen gën a taw feexe. noonu la ñuy dañuy wéyal ak daal dugg ci biir Eumeu Sène boo ñu mënoon wax kan mooy Eumeu Sène en quelques mots kuy Eumeu Sène junior. Eumeu Sène junior benn dongo la rek bu xeebu waaw dongo suñu Modou Abdoulaye Fall la waaw. ne ci làmb ji di kër di kër waaw dara sooteegul nag am na ci tournée amagu ci xaalis ñu wéyal ci kanam incha allah. balaa ñu ñëw ci làmb ji avant làmb lan nga doon def am na. waaw avant làmb man turee laa woon def naa football xam nga sama gars yi fii man daas yi Ameth Diop. ku bëggoon roulaat la nag daan roulaat rek xam nga après ma def tuulee garage Kara Ndiaye xam nga après laa dugg si làmb en fait juddu ma rek quoi nekk ci nekk ci nekk ci làmb dama juddu ñu ñu ñu jàngal ma alxuraan teg ma ci yoon bu baax xam nga après. laa làmb ñëw nekk suma bëgg-bëgg ko ba léegi yaa ngi def tôlier wala. non waaw des fois ma dem garage kërti kërti mais des fois mu jógee fa après mooy loolu. <laughs> Eumeu Sène junior nga jël sa bopp duppee ki nga xam te ne mooy Eumeu Sène lan moo war a choix boobu lan moo tax nga tuddee sa bopp kooku. waaw ëm daraan suñu kër dafa fréquenté fii boobu ñu ngi dëkk fii sax waa daraan ñëw kër ci suma grand frère gi xam nga loolu moo waraloon suñu xamante man ak moom. mais eh, xam nga ba mu tuddee woon ko sama bopp mais lépp tawfeex la daal lépp ci jàmm la njëkk te ci jàmm la mm-hmm. ah. lan moo tax nga choisir Eumeu Sène comme nga tuddee sa bopp ban critère nga gis ci moom ba mu gënal la ci mbër yëpp. ok fréquentation bi la woon rek mu ñëw suñu kër ma nekkoon booy commencé dugg si làmb mu ñëw suñu kër xam nga affaire yooyu ma ko doon toppandoo aussi tamit di ko toppandoo di ko toppandoo xam nga ba tuddee ko sama bopp ah. Mm-hmm. mais du leneen quoi. ci loolu nga tuddee ko sa bopp yan relation ngeen am yéen ñaar. waaw ñu ngi si jàmm ñu ngi si jàmm mu ngi si jàmm maa ngi si jàmm mu ngi ci famille maa ngi sama famille amuñu benn problème. Mhm. waaw. yéen a ngi déggante mu ngi lay nemmeeku. dëgg la mais xam nga jot amul te ñu demee nii xam nga ku ci nekk sa njaboot nga tal sa famille nga tal mais xam nga loolu du problème quoi. dañ ci gën a xuus ci kanam tuuti ëmma lan moo dugal ci làmb. waaw làmb li ma ci dugal mooy ki ma njëkk ma njëkk a taxal ngem muy xaal yi mooy suñu atelier mhm. mécanicien ba. moom danaan bëreenti quoi ànd ak daan ànd ak ay alam daar ak affaire yooyu noonu xaalis moomu njëkk a takkal ngemb fii nii tey jii pièce a bi yaay bi nekk aléa boobu fala doon fekk moomu njëkk a takkal ngemb moomu dugal ci làmb xam nga des fois la ma koy wax sax dama ko dama dugal ci làmb ba pare bëgg croiser nekk xam nga mais lépp noonu tey rek euh, mbiru suñu borom la destin la mais lépp ci jaara suñu borom ci moom la ko jaara après ñi ma ciy jàppale ñëpp ñoo fekk si ma ci muy suma famille ak sumay am di jàmm ak sumay xarit waaw mm. ba léegi nga dugg ci làmb ci loo duggul ne dina am lu la ciy neex na dina am lu aussi lu la ciy naqari sa jaar-jaaru làmb lan moo ci gën a marqué. su ma làmb lu ci gën a marqué. marqué comme naka lu lu métti wala. ñaar la wax dund nga ci neex dund nga ci lu naqari ban moo ci gën a marqué. ay métti laa ca mais moo ci bànneex de làmb. lan moo la ci gën a métti. làmb fayagu ma de. lan moo la gën a metti ci làmb ji. waaw mais lekk gu ma ci xaalis moom ñu ma. léegi est da ngaa tollagul fi ñu lekkee millions yi wala. Hmm, am na ñoo xamante ni maanaam tuuti lamb te ñu ngi lekk xaalis bi loolu dara. am da ngeen nëbbatu wala luy loolu. Hmm, nëbbatu na moo tax xaalis bi ñëwagul ne xaalis bi ñëw. xaalis bi ñëwagul ba nga dalee bëre ba léegi commencement ba suñu jëm yàlla si lan moo la gën a neex ci sa combat yëpp. sama combat ak Kaaw Cissé sama combat bu neex la woon dama ko jël écrit bi ma nekkoon fekk début saison la sëñ Mor Niang moo ko tëggoon écrit bi na ma entraîné woo ma leen maay entraîné Bour Fale la woon man leen maa ngi na ñu ne ma ñaar moo am dañ lay daan ñu dàq la war nga bàyyi combat bi man leen d'accord na bu ma daanee ngeen dàq ma te ma doon bëreel moom moo moo sut ma ci une semaine dem ñu bëri combat bu yàgg boobu gën a yàgg ci sama combat dem na ba ñuy bëgg a suuf la nga ma daan ko jël bu rëy combat boobu moom a neex ci sama combat yi liñ ma fa tegal foofu noonu ak domb ma fa fournir. Mhm. moo tax mu neex ma ko mel ni combat bu défilé woon pour yow boo doon relever. ba nga jaar def defi boobu nga am. pardon waxuma ko pour dara mais nga am 5 défaites ci defet yi nga am ban defet moo na ci gën a métti nga xam défaite bii kat waroo woon waroo woon daanu ci combat boobu. suma combat ak Mourao moom a a métti ci défaite yi ndax combat bu nga xamante nii moo nekkoon suma maanaam sama sama combat sama sama demi final la woon ndax dañ ma tegaloon Mourao tegal ma Xaarim Ndiaye 2 su ma bëree ak Mourao su ma ko daanee damay bëri Xaarim Ndiaye 2 may chargé pois bu nga xamante ni du pour Mourao Tine. ma doon préparé waale ak Xarim Ndiaye te ci poids boobu noonu ma doon chargé moo ma moo ma perclos ma ak ak moo rawatin mais làmb la woon loolu moo nekk ci ci ci ci arène bi soit da ngay daanu wala nga daanu soit da ngay ñib. Mhm. ban jàng ban ban jàng nga ci am ban leçon nga ci tiré ci defet boobu. waaw waaw waaw bu baax sax laam jooju li ma gën na ma defaan mbër amoon naa ay combat ma pot yu ma def mbër mais combat bu gën na ma defaan mbër laam jooju gën na tax ma xam ne nit bala nga daan da ci kawam. Mhm. laamin stratégie daanul nit nit bala nga koo daan da ngaa toog ci kawam ba pare at bu jege sa loxo. Mhm. ndax mu jël gën na ma jàngal bu baax. Mhm. ci la jëlee écurie bi nekkoon yóbbu la Mor Fadam. waaw balaa loolu Mor Fadam laa nekkoon sama grand yi jëlee ma Mor Fadam ma Bul Faale. Mhm. ku sante bañ sante nangu. mënu ma joxe bopp roo ci làmmiñ kilifa lañu woon lu ñu ma wax loolu laay def. ma topp leen yóbbu ma comment dire bul faale ma dem bul faale ama seen bi muy génn bul faale comme moom moo taxoon ma dem mhm. euh, nga ñu nekk fa ba ma dem nga man mii tamit ma xam ne produit yu Morfadam laa aussi doomu géejawaay laa. Mhm. man nii ma xamante ni nii instant bi nekk naa ma ko bopp kenn mënu ma ci lu ma neexul. Mhm. bon ma yëg ci waa suma suma écrit maa ngi nuyu suma waa écrit yëpp de passage ak suma naatoo yi nga fa nekk mu baytin guy gi njambaan Fadam Junior yëpp ma leen di nuyu bu baax a baax. xam nga après xam nga mooy loolu daal ma ñëwaat tamit ñoom ñu jox ma sama gëdd ci làmb bu baax a baax a baax waaw ma leen di nuyu bu baax a baax. balaa ñu nuyu aussi président bi Fatou Sylla maa ngi koy siyaar moom moo ñu. balaa ñu jógee ci écurie moom ñu jëm ci moo fadam boobu noonu nga jóg nga dem jóge bul faa dem tay si nga fekk nga xam ne mooy sa turon doon jóge fa lan moo lan mooy motif exact nga ba nga jóge fi nga xam ne kooku nga duppee sa bopp dem beneen écurie. waaw motif bi wax naa la ko mooy que dem ba xam ne man mii suñu majeur ay vacciné magum jëmu laa damay dem sama gox ma eggale fa sama làmb moo tax wax naa ci biir wax ne naa la produit Mor Fadam la damay dem sama koñ ma yeggal sama làmb loolu moom indi wax école de Mor Fadam te et puis ma ci dara te bu ma nee la jógewaat école Mor Fadam dem feneen wala feneen ma nee jógee école Mor Fadam dem feneen je ma bàyyi làmb ci noonu nga jógee écrit tâche nga amoo ci benn relation bu xaw a ñaga sa diggante sa turandoo. non non ndax bi ma fay bi ma fay jógee damaa ñëw waxtaan ak moom toog na ko dama bëgg a dellu sama koñ mu ñaanal ma ma dem. ñaanal nga dem. écurie Mor Fadam yaa ngi fa yaa fekk fekk nga fa ay mbër ba relation nga am ak yu mbër yooyu nekk foofu. jàmm jàmm jàmm tout le temps jàmm parce que ci jàmm laay dox jàmm laa xam xaw ma histoire xaw ma coow su ma ko defee la ma ci poussé. parce que Cheikh Fall ma ko may nuyu mbër yi comme li ma la wax sànq ay mbaytin ñambaan safara buusita da leen di jox micro sax billaay wala guy mooy suñu tëddee fii ñu man maay tëddee fii mm-hmm. te mënuma leen ëppuma leen mm-hmm. ma leen dara mm-hmm. mais cër la bu ñu ma jox te dama leen koy delloo ni ñu may jiñee tëddee fii man di jiñee tëddee fii mais lépp mbir yàlla la ku ci nekk li nga yëngatu yàlla suñu borom defal tawféex ak sa njaboot c'est ça la vie ci bu ñu génnee écurie yan relation nga am ak yeneen mbër yi waaw am naa fi mbër yëpp am naa ñoom jàmm Tyson 2 suma xarit la euh, Jaguar suma xarit la Boy Saloum ikiri Boy Niang suma xarit la dèjà man maa ko classé ma ne ko demal seen ikiri ba combat bi jàll parce làmb dafa sacré maa ngi yow lu ñu boole du affaire làmb làmb laa am ak ki nga bokkal ikiri bon bref gérer leen man ma gérer sama bopp. loolu daan ma taxul mu yàq suma digganteeg yow. ma am ndam taxul mu yàq sama digganteeg yow. léegi ci loolu nga def noonu da nga def. Euh, c'est affaire mystique la walla la moo tax loolu. Boy Saloum non dama ko bëgg a yenni dama ko bëgg a yenni barki maam Seera Fall Lamp su ko Calme Ndour nangu woon ah billaay wala jour sàmm ji mën naa ñëw ci man siyaar ma dem ci Calme Ndour siyaar ma. loxo yegg seguñ yegg seguñ ci nga jóge tay ci nga dem fi nga xamante ni mooy écurie Mor Fadam ñu ne Géejawaay Pikine Eumeu Sène war a bëre ki nga xamante ne nii mooy Lac de Guiers 2 la mooy sa position ci combat boobu. <laughs> Eumeu Sène la dëgër de ah làmb la làmb ju neex la mais la dëgër laa bokkal gox moom laa bokkal géejawaay moom laa bokkal 100 pour géejawaay la dëgër laa am fitu ñaanal ko yàlla may ko ndam ko doomu la. kon man daal ci la dëgër de nga faral. koo ñaanal ndam kay xanaa moom loolu kay. moom maa bëgg mu maa bëgg mu leer rek maa bëgg mu leer. naan ñi kay loolu maa bëgg mu leer. ci xel bu ci xalaat bu gàtt daal la dëgër nga faral koo ñaanal ndam kay xanaa faral nga ko am de ëmma ëmma seen amuñu benn problème encore une fois bala nga ñëw foofu amuñu benn am naa droit ñaan la dëgg parce que 100 pour cent géejawaay bi même bu dara chaque combat gars yi def seen dërëm ak seen ñaar dërëm dem yóbbul mbër bu nekk mbër bu am combat ci géejawaay ñu mm-hmm. yóbbul la dërëm la degee dina ci dem que mun nañ daje mën a la dëgg seq nañ jàmm keneen ak keneen noonu ëmma seen amuñu benn problème mais doomu géejawaay la te 100 pour cent géejawaay laa boobu mm-hmm. groupe bi dañuy vocal di déggante ñun ñëpp mm-hmm. am naa droit ne am Lac de Guiers yàlla na ko yàlla may ndam. Eumeu Sène nag bu bëree keneen ku dëkkul géejawaay yàlla na ko yàlla may ndam. loolu nag jaratu ñu ci sori yaakaar naa ne loolu leer na. naa ah, gën a jege gën a yay dañuy ñëw cappaandaw gi li war a mbaboor si diggante ki nga xam ne mooy Calme Ndour <laughs> xale bi nga xam ne dafa ñeme il n'a pas peur de toi lan nga koy wax. waaw Calme xanaa di ko ñaanal jàmm di ko siyaar wax ko champion siyaar naa la xam nga di waxaat ne làmb moo ñu boole man ak moom dañuy ñaan yàlla yàlla may ñu ndam rek mais du leneen du suma ennemi sama noonu li muy wax ci làmbam yépp man xam nga jàppewu ma ko ko li ne ci moom lay wax man li na ci mën naa ko denc bala zuuti ma génneel ko ko incha allah. lii jot jot na ginnaaw de làmba ja ubbi na bàq ba daan la le premier mars incha allah dañuy ubbi làmb ji képp ku bëgg ku bëgg a tëgg kombaa yaakaar naa ne jot na euh, Eumeu seen junior Calme Ndour nekk mbër bu la ñeme nee na bu dee bëre moo la ko dàq bu dee xeex moo la ko dàq bu dee mystique moo la ko ëppale fuuf. waaw loolu lépp dama koy bàyyi ak moom ba jour làmb ji incha allah moom na jël lépp tee na jël bëre na jël doole ji na jël misik bi na jël lépp mais bu jour làmb bar bi ne péri bu ko dara leer dara bu mu ko leer. ama seen ci yoon mu mel ni yow kalmunu dalaa dalaa ñeme dalaa dalaa ñeme mën na ko ba nee na sax yow paa nga moom xale la day ñëw birib dib yow yi bëri yooyu ngay def moom nekku ci paa laa na ma jàppee paa mais man sama moroom góor lu ma yàpp bii ci biir géew même soo may daan bi laay wala xam lu ñuy wax parce que seerafal dañ ñaan da koo da moroom mu daan ko mais góor yàlla du ma yimajee ci biir géew amul barki Mourou Baye ji li du caaxaan. ñu constaté sa combat làmb ji kenn ëpp ma ci kenn sutu ma ci kenn dàqu ma ci bëre kenn dàqu ma ci xeex. wërsëg nag yemul mais kenn benn bombardier moom ëpp ci làmb ji benn bombardier kese à part bombardier kenn ëpp ma ma loolu. xale bi jàpp na ne moo la mën de. loolu la jàpp ci boppam ñi ko fi jàpp bari na bëri naa ko nu ñu koy waxeeti général Malika loolu la jàppoon bëri naa ko Boursine loolu la jàppoon bëri naa ko Limousine loolu la jàppoon keneen ak keneen ak keneen noonu ma leen njëkk a mais maguma leen suñu borom daal dogal man damaa teel am tur. Mm-hmm. ay njëkk a bëri ñoom ñëpp mais maguma si kenn. Mm-hmm. biñ taxawee suñu première signature ñu koy defee place Jumbo maa ngi nuyu Jumbo di nuyu Alain. maa leen di siyaar bu baax a baax. Mm-hmm. di leen soo daal grand Pape Sarr maa leen di siyaar. leen ñaanal jàmm. xam nga di gën a jaale ale ak suñu waajur woowu laaxoon di ko ñaan yàlla suñu borom xaaral ko àjjana. Mm-hmm. dañoo daje ma ne ko gaynde mu ne am ma ne ko billaay wallaay am nga combat li mën a mën a xamal mooy am nga combat lu la neex nag waxal lu la neex waxal mais am nga combat nekkuma ay mbër yu nga xamante ni ay naan ay waxu ay waxu man ay stratégie daal ma de ay technique damaa jaar ci écurie yu mag bul faale fa la écurie dëppee maa ngi ci écurie nii mais mais discipline bi nekk bul faale amul ci écurie amul dama koy wax saa su ne discipline bi nekk bul faale amul ci écurie écurie boo xamante ni bu la daanee jël bu yomb da ngay appuyé boo tardé entraînement boo ñëwee ci bunt bi ngay dox su la teglee ñaari jël yu yomb jaan la ko am na benn bërigo bu fa nekkoon dan la koy yenn dan la del yuuxu di wër saa naan maa ñaako jom yar dëgg la de wax ay wax yi ay waxu nu muy wax naan ay waruma bëri moom maa ko raw ci laa moom wax yooyu frégué wu ma. ah gis na bataille psychologique la. non même bataille psychologique garaaw na ko wax lu ko neex mais yooyu frégué wu ma man yooyu frégué wu ma maa ko jiitu ci làmb te dinaa ko wane incha allah dinaa ko maa ko njëkk a bëri. ci loolu nee na yaa ko mag en plus gis nañ ama seen sa sa làmb yu ci bëri day durer day yàgg. waaw làmb la rek des fois da ngay ñëw dajeeg mburu bu dëgër bopp bëri des fois dañuy war a ñëw daan dem ñibbi mais duñ ko def dañuy gëdal jiwdal jël loolu mooy war a yi metti waaw doon lay demee kay dañu sant yàlla rek jàpp ci borom moo ñu nattee nattoo ñun mënuñu bu yomb sama carrière amoo combat bu yomb. Mm-hmm. asafur sax yombul muy sama combat ak euh, euh, tigre bu lamsaar maa bi ñuy bëree moo jëlee combat bi dañ ne ma da lay bëriloo ba nga tëdd ndax dafa vif dafa gaaw mu gën a sawar ci combat bi arbitre dana prip laa ma jeex. Tigre Lone sax ku ne xam ne champion la. Mhm. combat boobu xaw yomb gaaw samay combat. Mhm. mais à part ça awma combat bu yomb sama premier grand combat dañ ma dóor ba sama kanam gi fu lu nekk ci ay néewi néew yu garaaw man nag cere caax <laughs> ndam rek laa mais dañ maa duma. billaay walaay du caaxaan combat eh. loolu yàlla na too dama koy nangu. yàlla na too moom dafa jàpp ne loolu sax for la léewtoo jëmale ëllëg nee moom du def loolu prip dip neen parce que. ñi ko yoon dañ koo yàqam tey si pour fañ dëkk dafa sori amul jot boobu. ah waaw waaw waa mar la waa mar la moom. topp nga ko de ba xam nga ñi ñi muy àndal. déet moo ko wax <laughs> moom waa mar la mar la. ñenn ñooñu la yoon ñu téye la téye tànk yi loxo mu ñëw ja jàll la fee jàmm yoonam. lu yomb moom kay kon mënuma. <laughs> ah moo ko wax nee na bu moo la dàq bëre déet moom kay kon mënuma xeex mu ne moo la dàq xeex moo la ko bu fekkee daa bëgg ay ñaan katam téye samay tànk samay loxo kay moom kay mënuma làmb la rek ay ñaankatam dañuy ñaan ci yàlla man sama ñaankat dañuy ñaan ci yàlla doyloo naa ay ñaankatam man ñi may ñaanal aussi doy naa doyloo naa leen bu baax a baax a baax li ma gëm mooy jour làmb ji moom munuma ma tere def li ma bëgg a def. pour moom il promet combat bu gaaw a gaaw a gaaw à ses fans yow lan ngay promettre say fans. say ñu ñëw xam nga dal jàmm bu fekkee huis clos amul ñu ñëw dal jàmm. xam nga ci jour si incha allah bu soobee yàlla yàlla suñu borom yàlla ñu yàlla defal ndam. du ma ne mukk mukk mukk mukk mukk la fa nekk maa koy maa koy maa koy jëli ndax yàlla suñu borom moo ko fa teg muy ndam li mais yàlla ñu ko yàlla jox bu gënee ci ñun yàlla ñu ko yàlla jox bu ci ñun tamit yàlla na ko yàlla defal ba mu gën ñun mu jox ñu ko ci barke Cheikh Fall ñaar yooyu yaa ngi koy wax loolu yomb na de. yomb man loolu laa am jaam laa dagaan laa am ak ñaan yàlla suñu borom mu defal ma bu gënee ñun yàlla ñu ko jox bu gënul ci ñun yàlla na ko defal ba mu gën mu jox ñu bu mbëree d'accord ba wii ko war a am CNG dafa teg ndogal nee mbër bu ci war a bëre 72 heures avant combat bi dinañ la tester. lan tester lan. tester ban la coow laa yi doon 72 heures avant combat bi mbër bu ci nekk dañ la tester. arbitre ba dañ koy teste testu testu lu testu Covid 19. waaw loolu problème dañuy jël affaire boobu teg ko sax bu dee. non du loolu de. lan la. <laughs> yow ni nga ko bëggee yow mën a test lañ daw test. non test lan maanaam test. nu muy demee. voilà c'est ça problème. am na lu muy dégg. xaw ma nag lu mu. mooy xeetu kii yooyu. voilà loolu la. pikiir bien. lu ma yor tul dinaa ko takk bu may ñëw de. kenn la pikiir waaye mbër bu ci war a bari daal 72 heures avant combat. ah mais vaccin yi tamit bu fekkee ne tawfeex la ci ñun. nañ ko jël. ñeme nga vacciné wu. parce que maam Serap Fall lamp bu fekkee ne tawfeex la ñun nañ ko jël. xaw ma nag lu mu doon ci ñun ndax ñeme nga dem vacciné wu. yow munoo wax ba lii ma la wax ma sàq ci leneen bu fekkee taw la ci ñun nañ ko jël. loo bëgg. ma ne nii internet ma pare nga pour dem vacciner wu. non non Macky ñëw mu yor piqûre ma yor piqûre mu piqûre ma ma piqûre loolu moo gën a yomb. que pare woo pour pare naa Sëriñ Bamba man for naa ci yooyu booy ñu ne vaccin yu baax la. mu mm. ne ku ko deful ku ko deful bés dina ñëw nga soxla ko doo ko am. Mm. mais xel ni dañoo mais ba tey version yi moo bari. te ay dong lañ mënuñu weesu ay nit nit bu déggee lii dégg lii foo jaar xel ñaar am jàpp ñu ni nag dinañ ñu lor jàpp ñu loolu wax dëgg yàlla mais tamit bu fekkee lu baax la tamit yàlla nañ suñu borom dogal daal lépp leer ndax fu mu doon nii lëndëm na lool suñu xel yi amee dangay fasciné waaw lépp taw feex la daal lépp doon taw feex kontaan nañ trop waaw leen di ñaanal bu baax a baax mooy nuyu waa suma dëkkandoo bii tamit amet xam nga di ko nuyu di ko gis ma ko woowee ne xam nga dama la soxla dafa ñëw bàyyi mu def lépp ñëw ma koy nuyu bu baax di nuyu soxnaam aussi tamit di nuyu famille yëpp may nuyu aussi Pathé la di nuyu suma waa koñ yëpp yëpp yëpp yëpp xam nga may sant bu baax a baax a baax a baax di nuyu sama njaboot di leen ñaanal aussi suñu borom defal leen tawfeex ñoom ñëpp ci barke am Cheikh Rafal ñu nekk ci leneen xam naa ni léegi ñu war a mën a xéewlu bu bu ko matee incha allah bu soobee yàlla. mbër la fu jaar xel bi ci lekk lay mujj moom ngay waxtaanu. bu bu xeelu bu xeelu bu yàggee ak may ma lay mujjee bu xeelu tegee bul xeewul man waaw. Ah. ñëw kat di. doxul xel. <laughs> dinañ français man waxuma ko de ëmma seen ñoo ko wax nee nañ français lañ bëgg deux mots en français quelques mots rek lan ngay fan si. en français. waaw encore une fois c'est moi Eumeu Sène Junior. je vous je vous je vous je vous fans comme ça je suis content pour pour pour vous tous il faut que tu prépares vous mais fans euh, prépare lamb ji incha allah ñu ñëw lamb ji ñu yàlla may ñu ndam incha allah je la. quelques mots à ta femme. waaw je t'aime. bilaay war na yàlla. sama jabar maa gi par maa lay siyaar bu baax par Cheikh Fall amal jàmm dundal lu bari maama ak sa njaboot yëpp yàlla na yàlla suñu borom def ba ma teral la bu baax a baax a baax. comme ni ko ñëpp yaakaaree ci barki maam Cheikh Fall bu jour ba nga ñëw daanu jël. wax dis-lui quelques mots en ah, incha allah bu soobee yàlla le jour ji comme ça quand il venu esat tu tu tu tu venu toi seul dem ñibbi incha allah. merci beaucoup di ko jaajëfalaat bu baax moom Eumeu Sène Junior di ko kontaanee vraiment nit ku baax la mm, kontaan nañ ci yow torop torop torop loolu moo nekkoon suñu émission Leewtoo ak ah di bëgg sama caméraman bi Mansour kontaanee naa la bu baax borom mañ pro Momo Mané moo nekkoon ci volant bi Yacine Fall kontaanee naa la bu baax a baax ah Ousmane nekkoo fi may bëgg naa la bu baax a baax di jaajëfal mbokk internet Leewtoo TV yëpp di nga xam te ne yéen ngi xaar seen émission Leewtoo ak sama parrain boobu ndaga ah, Iba Kane boroom suñu làmb kontaanee naa la bu baax a baax gis naa. sant bi gërëm bi ah xasida bi aussi gis naa ko mais kontaane naa lu baax ah gis naa sa sa yéene ci man daal gis naa ko baax béggee naa lu baax di leen jox dig daje ëllëg ak beneen champion incha allah jaajëf